te baasawuñ ci kenn duñ baasawu ci kenn waaye ñu ngi wax nguur ne ko ay junne junne nit suñuy depaar di ñëw huit heures de temps di ñëw ci géej ñu ngi ñaan matuwaay buñ gën a bëgg mooy nañ ñu dimbale ci gilet ndax la daloon ca bato la joolaa dañuy ñaan yàlla yàlla bu dal yàlla bu mu fi amati te nit ki moomul boppam te géej dafa doy waar kuy daw nag ci géej te amoo làmp ndax ku xam gaal xam ne amul ay faar dañuy topp ndax ñu min ko yàllaa leen may xam-xam boobu biddiw yi la ñuy topp di xam yoon bi ba mën a yegg si fii te ñooñu di ñëw noonu gilet yooyu mun nañu cee dimbale te yàlla rek tax loolu maa ngi koy ñaan président en première fois moo ko koy ñaan mu defal ñu ko li ci des nag mooy at bu nekk dana ñëw fii fekk waa chambre de commerce ñu ñëw gàttal ñu ci si ñu Daw gatanu nañ ñu ren gatanu nañ ñu daawaate je gatanu nañ ñu ñu lay gërëm bu baax ci loolu di ñaan yàlla yàlla def jàmm defal ñu ko ci kawlak gi nga xam ne moom lañ am ndax damay wax ne man toujours sama yoon nekkul ci sénégal yeneen région yi sama yoon ci lim nekk mooy sama dëkk gi nga xam ne saalum saalum lañ mu jëm ca kanam yàllam defal ñu ko tawfiq ba nga xam ne mooy dàq ndakaaro googu